mim réew Bamba ka moom jërëjëf borom Touba réew Bamba mooy kii ko moom jërëjëf borom Touba mim réew daal Bamba ka moom jërëjëf borom Touba réew Bamba mooy kii ko moom ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew daal Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf sëñ Touba. réew mi Bamba mooy. kii ko moom. jërëjëf Bamba ko moom. moom réew mi Bamba mooy kii ko moom. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. mooy borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. réew mi Bamba mooy kii ko moom. jërëjëf borom Touba. mim réew Bamba ko moom. jërëjëf borom Touba. jërëjëf Serigne Touba. Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëf Bamba mo bàyyi jóg suñu micro ñoo mim réew Bamba moom jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom Touba. borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba